Bargny bi Real Madrid nekkoon nag équipe bii di candidat Bargny boobee ah, daanaka mujj na jur bànneex ci gone Madrid yi ah, match boobee jeex na tàkk waaye nag am na ñetti footballkat yoo xam ne ah, bëgg nañ leen cee defal vidéo bu ko defee ngeen xam seen taxawaay ci équipe bu Real Madrid bu ko defee buñ ko jiqaar ñee fële ca contre City wala boog ca contre équipe bi la nga xam ne moo nekk Chelsea ngeen mën a xam bu baax a baax fi gars yi war jaar ba mën Sirigo nga xam ne mooy l'homme du match l'homme du match nag doon na ko euh, ci terrain bi nga xam ne euh, daanaka moo ko moomoon footballul woon ailier footballul woon no footballul woon militaire euh, jaxase biir terrain bi la fi nekk woon ci loo xam ne taxawaayam gone gi daanaka fi mu mi a baax ci équipe bu Real Madrid nga xam boo xam ni bu mucc ayib la dugalul deful passe décisive nag waaye li waral ñu def ko l'homme du match mooy ñi xam ne daanaka ñoo def ay passe décisive ki bit kenn kum ci mën di doon la mu doon jokkalanteeg yow ci bal bi loolee day na gaañi keneen di Eder Militão match am tamit nekk match boo xam ne uh, bu mucc ayib la mu laal uh, wala boog mu fuqar ñi lu toll ci fukki bal ak juróom-benn uh, bu ngeen ko déggee mooy bal yi nga xam ne récupéré na ko loolee musta am ren ci li nga xam ne mooy championnat Espagne adversaire loolee tey jii défenseur central bu Real Madrid bi def na ko moom mii di Eder Militão di brésilien boo xam ne deret ji football rek ci ne moo tax wane ko a bu baax a baax moom ndax loolee euh, moom lañ ko doon xaar jamono ji nga xam ne moom la nekkoon ci digg ay jafe-jafe ak Real Madrid loolee mënta compte ndax jafe-jafe ak li nga xam ne moo nekk match yu jaar yoon euh, ñoo ànd moo taxit daanaka loolee lépp goney Madrid yi euh, jéggal nañ ko ko kaneen koo xam ne rabaje na match bi tey doxal ko bu baax a baax muy naccoo mi nga xam ni moom it daanaka dugal na ci ab bit équipe bi yëpp daal kenn kum ci mën di doon kenn amul lu mu wax ci moom lu dul match boo xam ne bu parfait jox nañ benn korfañ ki nga xam ne mooy Chelsea ndax dana ko alawtiku ko xam bi nga xam ne moom la ñuy dugg ndax match boobee match décisif la ci ñaari équipe yi nga xam ne Real Madrid moo ko dóoroon ci aller ba 2-0 match retour bi nag dana mel ni mbàcc